nous sommes en mode chantier. Bienvenue au Victoria Club. Poppy deux en euh, mais Mami Dalla how are you. I'm you. I miss you. dama lay namu Mami Dalla. mais gëj nañoo waxtaan ah. waaw gëj nañoo waxtaan nag quand même. ah ouais. Mm-hmm. mais ça c'est pas normal. c'est pas normal la mais Pape loolu def New York. waaw ay affaire rek ay bagages ay ay ay ay ay yu ne naa ko fa. <laughs> dee dekki. ay dee dekki ay yooyu yëpp def naa ko. mais da ngay yàgg yow waroon du da ngay yàgg yenn saa yi nga. waroon du yàgg pourtant lii dafa neex de. Mm. defal émission bi ma xool posé ma quelques questions ma tontu la. ok salaamaaleykum mbokk yi Sénégal maa ngi leen nuyu di leen gërëm di leen sant jàkkaarloog nag sama invité Pape Cheikh Diallo tey ma bëgg laaj ko tey lan la doon def Amérique. <laughs> mais maa ngi lay nuyu Viviane yaayu borom xew bi kontaan naa lool. mais tey may posé question yi. non mais eggal ba pare non non non may posé question yi non bu sax nga yàgg. non non xam nga. dafa neex dëkk la bu xaw a garaaw neex na neexul ah bon après voilà ça dépend. yow ah, de voilà man xam nga dama bëri affaire quoi damay dosé waale. mais ba pare nag man xam na yow xam nga yu bëri yoo xam ne xam nga yaa ngi koy teg aussi. lu xaw a garaaw quoi ay bagages xam nga. <laughs> mais lu baax la quand même xam nga. Euh, mu ngi ci affaire yu grave bu ñëwee incha allah man maa leen koy njëkk wan. <laughs> yaa koy njëkk a annoncé ah bon loolu ça viendra. voilà ay nomade blue. Mm. ay affaire yoo xamante ni mooy loolu mais on n'est pas là pour parler de tout ça tey dama mm. kontaan. puisque dama la fekk ci bërëb boo xamante ni. Mm. li man ni sànq bi may doog a nuyoo nii femme chef d'entreprise nga depuis très longtemps. Mm-hmm. Jolof Band rek ku ko xam-xam ni société la boo xamante ni ay ndaw nga jël ñu ciy liggéey. am na yeneen mbir yoo xamante ni teg nga ko yu ma sàmba xamul ma demba xamul Viviane Chidid nekk artist ubbi club il fallait le faire ah soxla woon nañ ko moom ah oui il fallait le xam nga club moom dañ ko soxla voilà soxla nañu artistes yi xam nga ñu ñu am suñu club mhm. suñu club boo mhm. xamante lu ñu xam nga dañuy tëgg saa suñu saa saa yu ñu neexee dinañ ci waxtaan ci kanam mhm. mais d'abord dama lay bàyyi nga nuyoog internet yi parce que sànq ba tey maa ngi naan leen am na fu seetaan bi di toll ci laa leen di tojal yax bi nuyoo goo leen puisque ñii ñu ngi seetaan ci YouTube bi euh, chaîne officielle Viviane Chidid Viviane Chidid officielle abonnez-vous ngeen laal cloche bi et puis à tout moment di ngeen jot ay notification ci lépp loo xamante ni jëm na euh, ci actualité euh, Viviane Chidid comme vous le voyez elle comme moi ak staffam depuis déjà des mois ñu ngi nekk en mode chantier Victoria Club nag deux le en un deux en un mooy day am club ci kaw nga xam ni artistes yëpp dañ fiy tëgg waaye tamit ci suuf c'est un lounge boo xamante ni si vous avez envie de faire la fête je l'ai dit tantôt su fekkee da ngeen bëgg euh, juste trinquer ou prendre un verre avec des amis venez nous sommes en ville d'abord Viviane dañ lay bàyyi nga nuyoog internautes yeeg téléspectateurs yeeg fans yeeg sénégalais yi nga xamante ni ñoo nekk dina la seetaan. waaw Pape merci beaucoup xam nga saa yu ñu jàkkaarloo kontaan. Mm-hmm. Euh, ba tax na nag balaa may wax dara ni nga ko waxee damay nuyu Sénégal yëpp. Mhm. di nuyu euh, ñi nga xam ne ñu ngi seetaan fépp ci àddina. Mhm. ah euh, di baalu ak ñëpp encore une fois. Mhm. di leen wax ne kontaan naa. jàkkaarloo waat ak yéen sama fan si Sénégal. ah xale mag ndaw ñëpp kontaan naa jàkkaarloo waat ak yéen. pour waxtaan ak yéen tuuti ci liggéey bi Pape. mais sénégalais yi ñu ne toj nga dëkk bi de. ci sa mariage taaw bu jigéen bi. Eh, ñoom ñoo ko toj ah. non ñu ne yaa ko toj. non pap pap xam nga euh, damay dellu di sant yàlla bu baax. Mhm. di santaat Sénégal. Mhm. ndax euh, xamoon naa ne vraiment am nañ fi ñu ma teg. Mhm. bëgg nañ ma torop torop torop mais lii da ko gën a firndeel. parce que tey euh, li may wax ne sama doom laa doon maye mais ñoom ñoo doon maye seen doom. dañ ma ko yéene yéene ko Zeyna. donc ma gis Sénégal ñëpp kontaan. Mhm. ñëpp àndandoo. Mhm. bëgg ci euh, ci takk bi. Mhm. Euh, may wax ne Zeyna man. ak sa papa du ñoo la waaye Sénégal ñoo la maye. mais tey qu'est-ce que ça <laughs> cest à nga jur sa doom bu jigéen on ne voulait pas trop parler de ça waaye lii tam daf ciy baax pour que sénégalais yu bëri xam tolluwaayu ndaanaan bi man buur bu jigéen bi laa ko tuddee. sànq ba tey maa ngi leen di wax ni su ma waxee rek da ngeen di foog yi li ma ko bëgg a tax mais tey damay teg sama bopp ci place sénégalais lambda bi nga xam ni day bëggee Viviane Chidid fu mu tollu li fi xew yëpp ak cofeel boobu nga xamante ni sénégalais yi am nañ ko ci yow c'est vrai wax nga ko léegi. Mm-hmm. yàgg nañ la bëgg mais yii fi jot a xew yëpp. Mm-hmm. dañoo gën a wane dëggal seen mbëggeel ci yow. gën a dëggal dëggal dëggal mbëggeel gi dëgg yàlla ci mariage bi. Mhm. daal dëgg yàlla laa xam ne daal man Sénégal desalatuñ ma dara daal. Mhm. voilà parce que mënoon nañ bëgg ci way yi mënoon nañ ma bëgg ci sañse yi mënoon nañ ma bëgg mais dañ ko dañ ci boole bëgg sama njaboot. Mhm. Ah, yéene ma nag am yéene am yërmande am cofeel ci man ak sama njaboot. donc euh, tey du ma def lu dul santaat leen di leen gërëm di leen wax ne rek merci. waay def lu exceptionnel ñu gis la gis sa ñaari doom yi papa. gis Zeyna ak jëkkëram gis Bouba mi nga xamante ni mooy seen papa c'est-à-dire communion boobu nga xam ni wone nga ko c'était exceptionnel Viviane. mais dafa dafa neex ci xol dafa neex ci xol pap xam nga nga nga yar sa doom euh, ba mu màgg macha allah. Mhm. te neexul ba neexul nag pap sama doom bu jigéen bi dafa ma sagal nag. macha allah. sagal na ma te doom bu la sagalee da nga koy teral. parce que doom day day tontul ndeyam. waaw doom day tontul ndeyam mais teral na ma sagal na ma. Mhm. mënoon na ne man ci génération xale yi laa bokk. Mhm. dem na jàngi Amérique ba jàng ba pare. Mhm. macha allah dégguñu fa dara lu ñaaw gisuñu dara lu ñaaw ci moom. macha allah macha mu ñëw toog ci sama wet. Mhm. déggal yaayam déggal papaam. bëgg liggéey nag teg ci. ba jëkkër ñëw. ah loolu nag doom bu la ko defal papp nga teral ko. te nag kaay ma wax la xeeb naa ko de. xeeb naa ko ndax euh, euh, Sénégal euh, dëgg la boo boo gisee ne. Euh, xëy na yërmande geeg cofeel gi ñu gën a am ci xale yi mhm. parce que ñi gis ne ñu ngi dégg lu ne mhm. te te te xëy na mënoon na mënoon nañ mënoon nañu bañ a dëgër mhm. euh, parce que nit ku nekk ak sa sa personnalité nit ku nekk ak ni ngay filer mais gis nañ ne xale yi vraiment noppi nañu boolewuñu dara ki waax ñu ngi ñu ngi ne pat mhm. eh, ñu ngi liggéey ñu ngi ñu ngi déggal seen ay waajur ay mhm. ay nit yu siiw lañu mhm. eh, mais terewul ñu ngi ñu ngi noppi aussi pap xam nga jàpp seen njàmbur moo tax tey xam naa bés bi ñëpp yéene leen ko donc macha allah mais noppi boobu yow sa caractère la noppi boobu ay caractère u mag la ay xale sa ay doom sa à dire ñu nekk xale nekk ay mag léegi ba Zeyna war a sëy et tout ça euh, force boobu yàlla leen ci tàggat mais oui xam nga doom dañ liñ naan doom ja ndey ja mhm. te man euh, li ma yàgg wax rek ni leen man ni ma ni ma mel rek noonu laa mooñaale samay doom mhm. ni ma mel noonu laa yaree samay doom mhm. euh, kon tey damay sant yàlla rek tamit euh, ba ñu ba ñu ba ñu jël ni nga xamante ni foofu laa bëgg ñu jaar te macha allah yàlla na continuer waaw man li ma koy ñaanal yàlla na ko yàlla bàyyi jëkkëram amiin amiin yàlla na ko yàlla Euh, yal na fa sax mhm, yal na sëy bi barkeel yal nañ ci am njaboot bu barkeel vraiment li li sénégalais yëpp yéene mhm. Zeyna ak jëkkëram mhm. mook jëkkëram yal yal na leen daal incha allah ci ci bànneex ak mbégte amin voilà amin te nga te te nga ñaan leen ñu ñaana leen bu baax waaw man da man man man man <laughs> sénégalais yi leen xale yi sénégalais yi sénégalais yi ñaanal mhm. nañ ko. man mhm. maa ngi gis ah. parce que après mariage bi xëy na affaire yi dafa jaxasoo woon et mhm. après ma toogaatee seetaan affaire yi. ci laa xam ne vraiment sénégalais yi ñaanal nañu Zeyna. ñaanal nañ ko ñaanal nañ jëkkëram.